asalaamaaleykum chers internautes tey safoo di seetaan Mindiss TV tey ñoo ngi fii stade Massène Sène euh, de Fatick euh, di démarrer les activités ouverture nawetaan bi tey euh, waa athlétisme tey xewle waaw journée d' athlétisme fii stade Massène Sène ñu pare ne ko kii di xamante ne mooy Bamba Sarr tey gis ngeen ni muy demee si kanam tuuti dinañ leen wan ni muy demee incha allah avec Mindiss TV. asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maaleykum maa ngi di fay. foo jógee. ñoo ngi ay sa jàmb gum ASC Jam Bugum tey ngeen ñëwoon fii si euh, activité ouverture euh, nawetaan si euh, si athlétisme bi tey lu waraloon seen tànk fi waaw suñu tànk mooy le fait que dañoo ñëw fii pour compétir quoi ay 100 mètres ak soo la nga triple saut quoi waaw ak soo en hauteur fee neen tey yéen waa Jam Bugum yéen teew fii pour def lo ouverture bi tey. waaw ñun waa Jam la am na tamit yeneen i kii comme si sous-région bi quoi ñoo xam ne dañoo teew en fait loolu la quoi waaw. kontaan ngeen daa mel ni jox nañ leen ceeb ngeen lekk de. waaw ceeb bi moom neex na trop ak ngurubaan bi quoi. ak ngurubaan bi waaw. merci. soxna si ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu. boo jógee man sum na. waaw tey nga ñëw fii pour ouverture d' activité fii si Fatick ak stade Massène Sène pour athlétisme noonu la gisee tey événement bi. dafa normal waaw. neex na waaw neex na ngeen di def tey 100 mètres ngeen di def wala soit longueur wala. 100 wóolu nga sa bopp. waaw wóolu nga sama bopp bu ah, merci beaucoup. asalaamaaleykum euh, ñu ngi lay nuyu. maaleykum euh, salaam soxna Dib maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. tey ñu ngi woon fii si stade Massène Sène euh, ODCAV organisé. Euh, activité athlétisme ñu bëggoon leen laaj tey lan moo lan moo nekkoon initiative bi. waaw ba ma balaa nga may commencé ci question bi nga may ma ma tontu ci par rapport ak euh, ma nuyu sama gars yi euh, di jaajëfal sama parrain bi presque mooy yëg si noonu mooy Ahmadou Bamba Sarr DAGE ministère DAGE ministère de de élevage mooy door a ñëw noonu mooy suñu parrain. Euh, li ñuy def nii tey yëpp moo ñu ko moo ñu ko baaxee donc may ñaan peut-être la commission ñu dalal leen euh, di nuyu également di félicité membre zone yi membre euh, ODCAV yi membre ASC yi nga xamante ne ñëw nañ participer tey par rapport ak li ñuy def nii tey tey nag dañu ne woon lancement activité ODCAV dañu gisoon que ni jusqu'à présent sax nit ñi dañ koy laajte di ndax nawetaan dina am ayant à l'esprit que est-ce que football dina am ñu bëgg na a woon tey que ni affaire yi nekkul kese football aussi mën nañ def yeneen activité yoo xamante ni c'est des activités sportives des activités culturelles wala socio économique donc euh, boo xoolee ci logique boobu lañ demoon ne nañu diversifier suñu activité parce que tey jii am nañu au moins lu ëpp cent jeunes yoo xam ne ñoo ngi fi ñoo xamante ne amuñu woon chance football muy góor ñi mais am na ay jigéen yoo xamante ne aussi dañ leen jagleel loon les derniers kii rek Euh, les les les dernières tâches rek nga xamante ne ñëw tàccu ñëw andi ndox ñëw joxe jus yooyu noonu mais tey gis nga ay xale yu jigéen yu bëri yoo xamante ne ñoo ngi fii daw donc je pense que aussi ñooñu il faut ñu jox leen chance ci logique boobu lañ ne nañ def journée d'athlétisme ñu commencé ko nag par récital de Coran ak ay prière waaw parce que moom lañ njëkk ci suba on a été au siège fa lañ ko defee ndax taw bi parce que fii lañ ko waroon defee mais suñu siège fële euh, ex conseil régional des finances foofu lañ defee récital de Coran bi prier aussi ma bi ñu yegg see stade par rapport ku ci ne ci diine bi ngay yëngu ñaan nañu door a tàmbali. waaw lu tax ngeen choisir bi moom c'est pas c'est pas c'est pas gratuit parce que wax naa ko sànq ñun dañuy naan dañuy di defi nawetaan mais tout le monde nu attend au terrain de football dañuy fàtte que ni nawetaan lépp lañ ñu jox 1976 euh, lañ jox ONCAV. ki ki décrété ko d'utilité publique mu ëmb li nga xamante ne mooy activité de vacance activité de vacances dafa yaatu du football rek am na xale yoo xam ne tey balaa ñoo gën a sawar ñu ne nañ def athlétisme am ñoo xam ne balaa ñoo gën a sawar ñu ne nañ def bëre ñoo xam ne handball ainsi de suite donc moo tax ñu ne aussi ñun comme am nañ opportunité pe am nañ cadre baa ngi fi parce que stade bi gis ngeen ko c'est bien matérialisé donc par rapport à ce stade là war nañ mun a def athlétisme moo tax ñu ne nañ def athlétisme jox chance ñëpp presque boo xoolee dix 19 zones lañ am te presque la moitié des zones ñëw nañ je pense que 4 zones à la 5 ñoo fi amul ay représentants mais ñëpp ñëw nañu. organisateurs yi si journée bu ñu jël jagleel ko sunu xarit sunu doomu ndey Cheikh Ahmadou Bamba Sarr mu nekk Taj ministre de l'artisanat donc nekk nit ku baax. nekk nit ku yëg bi nekk nit tam ku yëg population Fatick loolu moo tax bu ñu yebalee ñun tam ñu def délégation ñu ngir ñëw teewal ko fii. tey lan ngeen mën a wax tey jii si journée bi ñu jël ko tuddee leen ko waaw journée bi xanaa lu ma la wax rek di si kontaan bu baax a baax di remercier tam ñu ko tuddee les organisateurs vraiment kontaan nañ si baax ñëw nañ gis nañ jeunes yi ñu gis si performance yi tam. rafet na donc tam lii lii mooy doxal athlétisme tam au niveau de Fatick département Fatick surtout tamit tamit région Fatick lii tam idée bu rafet la lu baax la xale yi tam mun tam tamit tamit du compétir loolu tam vraiment rafetlu nañ ko lool lool. Voilà donc euh, nous venons représenter aujourd'hui ce soir particulièrement le euh, Bambassar. donc euh, à cette journée d'athlétisme qui a été qui est organisée par l'ODECAF de Fatick et nous nous en félicitons euh, pour la confiance qu'il a placée en nous pour venir le représenter à cette journée entièrement satisfait. tey yan matukaay yoo xamante ni jël ngeen ko Voilà, donc euh, comme vous le voyez, nous sommes tous presque en masque, hein, euh, dans, toujours dans la sensibilisation donc, euh, de cette situation pandémique. Donc euh, euh, nous demandons aux populations, en tout cas, de toujours continuer à respecter les mesures barrières, voilà, donc, porter les masques, à aller se faire vacciner surtout, parce que la situation donc, sur les vaccins n'est pas encore satisfaisante au niveau de notre territoire. Donc nous encourageons vivement les gens à aller se faire vacciner dans les euh, voilà, euh, postes de santé, les districts sanitaires, ainsi de suite. Euh, leen sant leen gërëm loolu waaw loolu moom xam naa ne mooy kàddu yi ma am à l'endroit de waa ODCAV donc tamit di di ñaan waa Fatick mu jàppale vraiment athlétisme parce que dafa bokk tamit si sport yi nga xam ne ay parents pauvres parents pauvres ñu koy pratiqué léegi daanaka sport bu am njëriñ sport bu am solo donc day tàggat xale day day yee xale day def lépp xale

gën a maanaam gën a gën a gën gën a moytuwaat parce que loo xam ne nii xamuñu fi mu jógee xamuñu kañ la fiy jógee aussi na doon loo xam ne daal saa yi dañ ko beneen côté bi mooy xam nga ni élection yi dañu ñëw te bu wàllu émission bi si ay xale yi surtout dañu doon la daal nga dem jël sa carte bi nga ko téye ko ki nga war a fal nga fal incha donc euh, pour lépp lépp lépp samay ambition vraiment je suis dans le parti maa ngi continué di jàppale président Macky. maa ngi topp ci ginnaaw Matar Ba. Mhm. ànd ak moom di liggéey vraiment donc euh, mi ngi noonu daal.